hello assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah tey dañuy am dialogue bu neex maanaam waxtaan wu dox diggante ab jaaykat ak ab jëndkat jaaykat bi ak client ci lan la wax buying shoes buying shoes mu jënd ay dàll kon jëndkat bi ay dal lay jënd dialogue bi nak neex na am ay vocabulaire ak ay expression let's go seller Daphne, may I help you? May I help you? Ndax manala dimbuli. May I help you? Ndax manala dimbuli. May I help you? Su fekkee da nga ko link, da nga ko boole. May I help you? May I? May I help you? Ndax manala dimbuli. mooy tollool ak li ñuy wax naa loo bëggoon dégg boo demee ci boutique bi di jënd loo bëggoon loo bëggoon ma jaay la ko may I help you su ko defee yow da wax sa soxla may I help you ndax mën naa laa dimbali lan la ko tontu customer te mooy jëndkat bi client bi yes waaw mën nga maa dimbali yes waaw kon dañuy dugg ci biir mu ne do you have these shoes in size 7 do you have ndax am nga these shoes dàll yi in size 7 ci pointil 7 dàll yi ndax am nga ko ci pointil 7 dégg nga dàll yii nii ndax am nga ci pointil 7 dégg nga kon nee na ko yes waaw do you have these shoes in size 7 ndax am nga dàll yi ci pointure set seller mooy jaaykat bi ni ko I am not sure wóoruma I am not sure mooy wóoruma walla nga ni leeruma if you can not find them on the rack they might be out of stock let me look in the stock room mu ni ko ah wóoruma de if you can't find them su fekkee gisoo leen fekkoo leen on the rack ci li nga xamte mu étagère bi they might be out of stock mën naa am dañoo disponible mooy mën naa am jamono ji amuñu ko dégg daani ko let me look may ma xool in the stock room ci dépôt bi fi nga xam te ni foofu la ñuy def bagage yi wala fi lañuy def marchandise nga xam te ni Euh, suñ demee ba li euh, def ci boutique bi jeex foofu la ñuy jëlee dem dolliwaat stock room mooy dépôt dégg mu tax mu dañ ko bu fekkee gisoo leen ci étagère bi de xam nga boo duggee ci béréb bi jënd dañuy teg li ñuy jaay lépp mun ko nag bu fekkee gisoo ko ci étagère bi nii xamal ni peut-être mën naa am dégg day might be out of stock mooy mën naa am disponible luñu dégg mooy amuñu fi jamono ji dégg moo tax mu ni ko nag let me look bàyyil ma xool may ma ma xool in the stock room ci dépôt bi waaw ma xool dépôt bi fekkee gisoo leen fu de dee ah, mën naa am dañoo disponible instant bi jàpp ndiwun daal instant bi xaaral ma xool dépôt bi customer jëndkat bi ni ko thanks jërëjëf jaaraam I like to try on a pair if you have them daan ko thanks jërëjëf I like to try on a pair dama bëgguna nat ben père if you have them su fekkee am nga leen mun ko a ah, jërëjëf comme ko néna ko ma ah, ngi xol ji dépp mu ko a jërëjëf man de dama ci bëgg na natt benn paire su fekkee am nga leen dégg ok am nga dal yi dal façon dal yi ma la won am nga ko ci size 7 dama ci bëgg na natt benn père try on a pair if you have them seller jaykat bi niko ko I'll be right back. Magi delusi lagi. I'll be right back. Magi delusi lagi. I'll be right back. Magi delusi lagi. Oke? Okay? Seller jacket bi niko. ko xam nga dafa dem nag ba ñëw xool bi mu ba ci dépôt bi I'm sorry Mangi ngi lady soxna si lady mooy soxna si I'm sorry lady mooy soxna si maa ngi jéggalu de I didn't find your size in this style in the stock ko I didn't find your size gisuma sa lan sa pointure in this style ci façon bii nii dégg nga façon dàll yii nii gisuma ci sa size muy sa pointure waaw gisuma ko fan in the stock room fi nga xam te ne mooy dépôt bi dem na ci dépôt bi mais xool na mais gisut façon euh, daal li nga xam ni soxna ci la bëgg size seven mu ni ko gisuma ci size gisuma ci sa pointure comme que dugg na ci biir gisu ko moo tax mu ni ko gisuma façon dàll yi nii waaw gisuma ci euh, pointure bi nga soxla daal ko nag so would you like to try something else ndax bëgg nga essayer laneen ndax bëgg nga xoolaat laneen would you like to try something else Casamance ki nga xamante mooy jëndkat bi ni ko no thanks jërëjëf non non bëgguma xoolaal la neen bëgguma essayer la ñu bàyyi xel ci baat yi nii stock room mooy dépôt stock room mooy dépôt dégg nga stock room foofu lañuy jële jëlee di indi ci boutique bi ndax duñ mën a jël lépp sëkkandoo ko ci boutique bi dégg nga room to be out of stock mooy not available maanaam lu doon disponible jamono ji kon boo demee ci benn barab di jënd ñun la is out of stock mooy disponible ni ki lan it's out of stock now can you come back tomorrow it's out of stock now mooy disponible wut essence bi nekk fi jamono ji jàppandi wut can you come back tomorrow ndax mën nga dellu si suba loolu exemple la su ko defé ñu leen di fatélé rek képp ko xamante ni gan nga ci kër gi té abonné goo nga abonné bës cloche bi ndax loolu tax bépp vidéo bu ñu dugal rek nga daal ci mëna a jot facilement au lieu nga top ci internet bi di wër su ko defé ñu leen di fatéli aussi ni formation bi ngi dox balé képp ko xamante ni soxla nga ko da nga yónnee message ci numéro bi 75 634 34 98 75 634 34 98 Cadillac Aguilera, Babylonian. Goodbye.